business bi muy def. Mhm. il a besoin de cette presse d'abord pour promotion li muy def mais également pour se défendre en politique c'est la même chose. du manipulation ci opinion bi. mais tout le monde est manipulé tout le monde fait de la manipulation. muy man. Mm. muy yow muy kii tout le monde fait la manipulation. d'accord dernier tour de table. Mm. ñu tëj jotaay bi waxtu jot na. Mm. bon man pratiquement man ak euh, monsieur le ministre ñoo ci xaw a bokk jàngat mooy que euh, dañu nekk nit yoo xam ne xam nga comme ni mu ko waxee man je l'ai je toujours suivi bi ma nekkee xale muy def revue de presse à sud euh, chaque fois damay am damay am contentement di rappeler nit ñi histoire comme sànq ni mu ko waxee l'histoire elle est elle importante et c'est pas pour rien hmm. xam nga tey jii sànq fi nga li nga taxawoon fee di ko def di revue de presse hmm. ci moment bi muy jógee ci ñoom Khalil ak Reine Marie Faye di am tuuti modernisation Bougane moo ko commencé Bougane moo ci indi touche boo xam ne bokkul ak euh, waa RTS nuñ ko daan defee ba revue de presse am ampleur biir Sénégal. Mhm. et après bi mu jógee Sud FM ci la ko Abdoulaye Cissé remplacé après Baye Alé Niang et ainsi de suite ainsi de mhm. suite. donc moom moo indi revue de presse tey fii mu àgg ci moom la dooree ñu bëri xamuñu lool donc noonu la mës a mel. et après Walfu sànq jot na ko wax. Mhm. mais surtout passage RFM moom ma gën a marqué parce que jamono boobu maa ngi maa ngi liifantu ci métier bi. mu bu daan présenter journal olof 16h 16h30 da ko doon présenter ak fitna bu daan ñëw ci rédaction fitna la daan ñëwee. fitna voilà parce que fitna bi mu doon ñëwee mooy que da daan bëri liggéey. booba régie régie pubam bi mu ngi doog a commencé d'accord mhm. da daan ñëw. ak fitna takk parce que mu ngi woon ci mbedd yi ci panneau yi bu ñëwee noonu toogee préparer papier yi gaawantu mu ngay def journal bu ñu tegee élément mu ngay conté xaalis ba li ñu may wax ni ñuy jaar RFM xam nañ ci dara ah, mu ngay compter xaalis ba euh, pour paqueter gaaw bu journal bi jeexee mu daw dem bàgg noonu la daan jàppe ay journée yu chargé nekk. fayit mhm. kat nit boo xam ne cest di gëm sa bopp bi muy wax. maanaam loolu da ko teel a door. Mhm. ci biir ci biir métier bi et mu nekk royukaay par rapport à cela. Mhm. et et gëm sa bopp bi moom philosophie la boo xam ne moom da koo gëm dafa gëm ne sax. nit ku nekk mën ngaa toog ci réew mi tekk fii hmm. ci passage am dañ lay nettali ne euh, def na ambulant lu tara tara tara tar la ambulant ambulant moo gënoon a metti dem ba bitim réew ba mu fa demee New York da doon ambulant ci mbedd yi di dàqante policiers yi et jaar-jaara boobu nag dafa doon loo xam ne dañ ko war a wan ndaw ñi ñu xam ne affaire bi mën nga fight mën nga fi toog surtout ak li xew di euh, jël gaal yi di dem mën nga fi toog tekk fi léegi nag l'autre chose wàllum politique comme ni nga ko waxee terrain politique mooy terrain bi nga xam ne moo gën a glissant ci àdduna bi euh, mën nga ci jële jàpp damm damm comme mën ngaa tarxiis ba dugg palais donc moom dafa dafa indécis léegi nag mu dugg ci terrain boo xam ne mën na la may lu bëri par rapport ak sa business bi ngay def mais mën na la yàqal lu bari par rapport ak sa business gis nga yenn saa yi euh, problème yi muy am ak gouvernant yi comme mën na fi jaare euh, population bi jàppale ko ba mu ba mu am ci lu bëri bëri mais courage bi rek laay saluer. deuxième tour bi nag. Euh, deuxième. deuxième tour bi. <laughs> elle n'est pas sérieuse deuxième tour bi mais mais mais deuxième tour bi boo bëggee ma wax ci mën naa ci wax ah peut-être après monsieur le ministre mu jéem ma corriger mu ànd ceeg man mais xam nga le problème ci ci ci élection yi passé man dama wax ne moom mooy élection yi nga xamante ne nii dafa dafa dafa irréel ci man xam nga lu tax hmm. euh, dix-neuf candidats dix-neuf candidats sur fichier de sept million trente-trois mille et poussière logiquement dafa war a dem deuxième tour logiquement fichier sept millions et quelques avec dix neuf candidats logiquement dafa war a dem deuxième tour maintenant yàlla nag ak ay mbiram moo tax damay wax ne souvent les résultats de Amadou Ba ni ñu koy analyser baaxul Amadou Ba performance la def. Mm. ak ak plus de trente pour cent. Mm. bariwul parti buy daanu ci nguur am ko la plupart du temps bu ñuy dem vingt et quelques la ñuy demaale. Mm. mais Amadou Ba trente e quelques def. donc loolu performance la léegi ñan ñoo ñëwul li tax deuxième tour amul mooy que Diomaye dafa am 54 pour cent maanaam Idi ngay jox foofu Idi ngay jox foofu deux jox Khalifa deux euh, jox euh, Pur deux cest à ñu dem deuxième tour cest à looloo irréel maanaam ñee li ñu amul maanaam ñoom Khalifa ak ñoom Idi looloo irréel maintenant nag Bougane Khalifa Sall ak keneen ak keneen ñun ñëpp ku ñu waxoon ne affaire yi premier tour lay yàpp doo ko gëm. donc Bougane moo amoon courage rek taxaw ne moom deuxième tour lay xaar comme Khalifa Sall Khalifa Sall à la TFM dafa wax carrément nit mënta wax ak moom expérience bi mu am ci politique ci fichier bi duñ dem deuxième tour man mi bokk naa ci ñi ko mais yàlla ñëw ak ñëw ak suñu mbir maintenant pour pour rester ci sujet bi courage bi mu am mooy. ci moment bi nga xam ne parce que mu ngi koy xaw a cokkaasaale Amadou Ba. di ko mm. sànni xeer naan ko mm. <laughs> jëlagul courage pour pour pour incarner li nga xam ne mooy chef de l' opposition. mooy ko au moins moom 100 jours bi mu jeexee parce que dañ ñoom ñëpp dañu waxoon maase ne dañuy def délai de grâce ñu nangul leen ko aussi euh, parce que euh, ci ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy comment dirais-je démocratie nangul na leen ko daal ñu nangul leen ko. Mm. mais moom. bi 100 jours yi jeexee. Mhm. dafa jël courage am ne dafay jénn def li nga xam ne moom mooy euh, soit waxtaan ak ay ndawam wax leen li nga xam ne moom la jisee 100 jours yi courage boobu rek laa ci laa ci saluer maintenant nag li li des ci suñu kanam nag. Mhm. moom mooy faayit bu metti moo koy xaar stratégie bi mu defoon topp tànk yi saison une bi. Mhm. est da koy defaat pour man jàpp naa ne. bokk na ci li ko lool parce que loolu politiquement ah, monsieur le ministre da ngay def énergie bu bari xaalis bu bari et fi jamono toll lim na mën a rapporter du bari alors que nga toog digitalement nga am ay stratégie digitale ki nekk Fongue Lemine ki nekk Mbokki Jawe sénégalais bi nekk diaspora bi nga atteindre ko te di ngay dépenser moins d'argent et moins d'énergie maintenant est-ce que tour boobu mu defoon ah def ko deux fois Sénégal lan la ko rapporter dox na ba sonn. alors que Ousmane Sonko ci saalam la daan toog def benn live. live bi atteindre moom foofu mu demoon yëpp. est-ce que tamit du stratégie bi lay lay lay lay xoolaat et parrainage bi aussi ñu xoolaat ko parce que bokk na ci li ko sonal donc ñu xoolaat ko aussi. am na looy foo nga fi nga déparé ak fi mu daanelee ci bugaan <laughs> ma damaa jommi di. Ah. mais mais man. Euh, doo ma ah, baal tuuti rek dama bëgg a comprendre. Ah. en fait au début je me suis xam li ngeen di wax. wax ji fu mu jëm quoi. quand tu as parlé de de de deuxième tour. Euh, mais suivre naa. Euh, deuxième tour bi day cokkaas bugaat bugaat day cokkaas. waaw waaw c'est-à-dire que dafa am fenêtre boo ubbi. parce que sa conclusion moo tax ma di ci wax ni soo ma ko may en une minute. Mhm. bi ci njëkk mooy. Mhm. xam nga erreur bi nga def da nga ni logique. fichier wu 7 millions et quelques même Khalifa Sall bu ko waxee. en tant que politique ak fi mu jaar warul def erreur bu mel noonu. Mhm. que les hommes politiques les partis du leen compter dañ leen di peese. kenn du leen compter boo amee dix-neuf candidats man nga ci am candidat kuy peser soixante pour cent de l'électorat ak kuy peser zéro virgule un pour cent donc doo leen wàññi da nga leen di peese. mais justement monsieur mi pourtant lool laa wax ah. non waaw ñi ma peese. waaw moom laa wax ne Idi. non maanaam li bu ma ko daan teg ci balance bi avant élection yi nii. waaw da ngay xam ne Idi ëpp na lii. xalifa ëpp na lii foofu laa waxee pur ëpp da day ëpp lii. non ëpp ñu ko ëpp ko justement donc par yi laay wax. xam nga booy peese tamit élection yu mujj nga leen peese. déedéet doo yem yu mujj xam tax xam tax doo yem ci élection yu mujj. ak yii loolu laa jàpp ne foofu la problème bi. non non non prenons le cas de Idi. Idi def na fi élection am 14 pour cent. Mhm. yàgg na c' est 2007. 14 pour ñoom ñoom ñoom bàyyi. Mhm. mu demaat élection. am na boo xam sax ak euh, mooy la dernière élection moom moo jëloon deuxième. muy 2019. mais ci diggante bi aussi boo xoolee affaire yi ni muy ni muy ni muy tase ñii di dem. ñii di dem ñoom Déthié Fall dem ñeneen a ñeneen lu euh, le professeur d'université la mhm. tasaaroo dem. ces jeunes comme Thierno Bocoum. forcément voilà forcément tu te dis que la fa nekkoon mënatu fi nekk. mu benn mais xam nga lu mënoon indi deuxième tour au Sénégal. Hmm. Karim Wade candidat. Hmm. bu nekkoon candidat ñu dem deuxième tour écoute bien li ma lay wax. non d' accord naa si ah kii moo ci d' accord. disons yi muy def façon yi muy. non non dama lay wax xoolal. non déedéet xam <laughs> ma ni. ma <laughs> ni xam nga xam nga. <laughs> Euh, ñun ñu nekk ci arène politique jël foofu. bien sûr. di ci di ci yëngu vingt quatre heures sur vingt quatre. am nañ ci tuuti. expertise boobu war nañ ci mën a wax. surtout. xam nga Macky Sall il a tout fait pour Karim Wade doon candidat parce que xam na ne bu Karim Wade demoon candidat ñu dem deuxième tour bu ñu demoon deuxième tour mu def jonction Khalifa euh, Karim ak Amadou Ba dañuy gagné c'était ça le calcul de Macky Sall qui était clair mais ba mu ko doon teg la ko ñeneen doon teggi la mu doon teg noonu la ñeneen doon teggi man wax nañ ci man ak moom même en pleine campagne électorale kan kan si Macky même en pleine campagne tëju nañ ci wax ci wax ci wax ci mm. parce que Karim kan